militaires yi daal di ci profité récupérer ko daaneel euh, Ibrahima Boubacar Keïta ñii déstabiliser dëkk la ñu mën dëkk bu ñu dem déstabiliser ko te état bi na bàyyi Sénégal lan la war def euh, ba nga xamante ne mbir yi du jeex fay coow li fay parce que gis nañ ne 2008 2018 ak Human Rights Watch ni ñu ko waxee même problème la woon tey ak UNESCO nan lañ mën a fexe ba dakkal coow une bonne fois pour mu jeex ni ñu mënee def mooy nañu gëm suñu bopp Euh, Fonds monétaire international banque mondiale UNESCO UNICEF yoruñu añu Sénégal ak au Sénégal ak suñu mo yor suñu suñu Rer, ak suñu moko ci walillahi wal ard les trésors des cieux et de la terre mu ngi nek ci sama loxo man subhanahu wa taala ne UNESCO milliards yi euh, di di financer le système éducatif dana loxom su boba indi attitude di nangam alors ba tax na man dama ñaan à tous les hauts euh, responsables de l'État du Sénégal parenthèse bu may def la dossier bo xamné ñun suivroon nañ ko kookuy presse bi te ngeen tuddé ko di ko surnommé Jacques Boyer nu mu tuddati. Euh, te euh, le sous-préfet de Dakar Plateau defé na Djibi Diallo mhm. bi mu nek lu melni daf ko daloon ba mu sous-préfet fi ci Fissel mu am ben dossier bo xamné dafa jël service rek yam ci dossier d'un grand projet immobilier boo xam ne signature yi mu war a am yëpp am nañ ko cadastre ki euh, euh, euh, APIX waaye ba mu ñëwee ci ñu ci moom parce que dafa am yu mu ci déggoon xelam daal di tey effectivement ba mu gëstoo gis na ko premièrement site ba ñu ko jël ba ñu ko. mais ma ma tax waaw ginnaaw yéen yéen a ngi xeex loolu ñi ngeen di xeexal yéen a ngi leen di teg bët am déet ci réew mi gis ngeen leen xam ngeen leen lu tax du ngeen leen song directement dénoncé leen. moo tax ma jox la misaal bu gàtt bi rek dama koy tënk mu jeex ñun amoon nañ dossier bi waxuñu ko dara. ndekete moom itam yàlla dimbali nako mu daal am même ñaaw njort ndax place bañ ko bëggoon def dafa sori les lieux mais de façon globale ci réew mi ñen ñooy seefu loolee ñu bëgg a ci réew mi te bokkul ci ñun. waaw kenn xam ngeen leen xam xam ngeen leen wala xamul leen leen. kenn naa ngi non légui le sous-préfet de de de de de Fissel té nekk tey sous-préfet bu Dakar Plateau dafa bloquer dossier bi ndax dafa gis les 200 postes yi nga xam mom lañu la pressentir pour mëna doxal ce complexe hôtelier sa euh, euh, femme de chambre ba ci secrétaire yi ay góor lañu mu nekk lu doy mu bloqué ko c'est une longue histoire dañ ko mujjee proposé maletu 100 millions mu gàntal leen loolu la ñaan administration bi nañ ko généraliser ñëpp am cette attitude ñooñu la Macky Sall war di jox chaque 4 avril euh, n'est-ce pas euh, euh, commandeur de l'ordre national du Lyon, alors nga di ma ndax ñun xam nañ leen xam kay xam nga ci aw fuk ak juróom-benn euh, euh, euh, borom ñaari tur yoo xam ne dégg nga. mais loolu est-ce que amoon nga ci ay preuve loolu nga waxoon ne ay ñi ngi feeg yooyu noonu est-ce que lu leer lu la leer la woon ay preuve yu am nga ci lu leer nañ mais du ay preuve rek yem ci dama ko jox liste jox ko ay adresse. mooy association yi waaw waaw jox ko ay tur fukk ak juróom-benn association. waaw ñoom ñaata lañ toll ci mbooloo. léegi xam nga ñaata ñaata association la yu état bi autorisé. Hmm. xam nga fukk ak juróom-benn loon ba may seeti Aliou Nguy Ndiaye. léegi ñu ngi ci 32. état moo leen autorisé. au nom de quoi. moo tax lesbiennes yi ñuy saaga maa ngi leen di yëgal da leen mettre en garde solennellement xam nañ seen tur. mais mais dañ doon dañ doon dañ doon wax avion génn dëkk dañ doon yàgg a euh, tudd ngóor jigéen ci ñaari góor waaye diggante jigéen ñi am nañu jàpp ne daal seetlu nañ ni xaw na jéggi dayoo léegi ci réew mi sëy bi ci diggante jigéen. waaw dafa jéggi dayoo xam nga yëgoon nga fi coowu Ndella Madior Diouf ñu tuumaal ko ne ko lesbienne nga. alors euh, muy yow Babacar Ndiogou wala man buñu tumalon yu ñaaw yoyu yalla dimbali nañu xeyna amna nuñ kay euh, déco euh, teggi réagir fermement ci suñu façon mais yalla dafa dogal Ndella elle a un tempérament de feu mu daal réagir à la hauteur de l'affront alors ra féliciter ko ñepp na ah ak limu wax yépp ma lool loolu leneen la intéressé wuma ma dans un autre contexte mën naa ci addu waye ñun ñu ngi koy féliciter sur ce point précis ndax bari na fi ay jigéen yu ñemewul wax li wax ndax ñun dëkk bi de moom mu taxaw football leen fële xas leen daal di démarqué wu de manière nette du lesbianisme bi nga xam ni suñu borom ci diine yu fi wàjji yëpp na ko condamné par l'article 319 du code pénal alors ba tax na kon Babacar li ñuy ñaan état bi nañu di nier des évidences ñu jéem a seet lii nuñ koy parce que n'y a rien de plus paradoxal un état ngay fëgg sa dënn di bàkku ne am nga article 319 du code pénal bi xaramal ngóor jigéen sa même état jaar ci suuf di leen jox ay lijaasa c'est paradoxal na état bi nekk en cohérence ak boppam démb laa dégg Mamadou Talla mais doole doole boo xamante ne association yi am nañ ko xam ne ne lobby homosexuel dañoo am doole ils sont très est-ce que du loolu moo moo doole boobu moom moo tax ba euh, gàntal leen yenn yu. waaw mais comportement état moo tax lobby yi di dundee yaakaar ba tey démb laa dégg Mamadou Talla mu ne waaw lii du fi guléet parce que ñoom ñëwoon nañu fi en 2018 kon nag lii dañuy tiré euh, def le bilan euh, séminaire bi fi en 2018 lu tax ñu vous ñëwaat bu est état wax nous waxi full keroog 2018 fa la yëf mais mais bu que chaque fois dañ naan waaw on va voir lobby dañuy continuer di dundee yaakaar dañu naan ah Sénégal yi ngi dëgër de comme ni Gabon dëgëroon ouais comme que tontu nañu tontu bu nuancé bi yàlla le monde def baisse ñu ubbil ñu bunt bi. seen xeex bi nag euh, li koy gën a jafeel mooy euh, ràññee ñi ci nekk ñu ci newul ndax ay gëstu fii ci Sénégal wane ne ni. Hmm. ñiy def góor jigéen euh, ñu ci bëri dañ koy doon waaye dañuy ne ci sëy maanaam bu dee jigéen buy sëy beneen jigéen day fekk sax mu am jëkkër léeg-léeg bu dee góor bu koy def itam di ko seq góor day am jabar ba tax jaxasoo googu ñu jaxasoo. moo tax yëf yi xeex bi gën a compliqué loolu moom lu ciy pexe ci sa xalaat. li pexe daal na état bi commencé dès le départ comme je l'ai dit, une position radicale Yo haramal nga sur la base de l'article 319 xaraamal nga ko <clears throat> ndax ya ngi jité rew mo xamné euh téeméer bo jël juróom ñen fukki ak juróom ñet 98 hamti, ñu ngi teunk mo xam ci injiin yoon ci Al insa wala ci alcorane karim alcorane karim suñu borom gene na fukki fatwa ak juróom ñet suratul anfal suratul uhud suratul anbiya di reub borom ñaari turu nga dem suñu mbokk catholique saint téere Lévitique euh, chapitre 18 verset 22 suñu borom coucher avec un homme comme on couche avec une femme est une abomination bu la dit dimbali nak nga jité réew mu mel non unanimement rejeté les unions contre nature Les bi fekk si ñu daal di génn l'article 319 du code pénal loolu kay leer na kon avec les puissances occidentales Robert il est hors de question de pénaliser. dépénaliser waaye boo leen président Macky Sall Barack Obama ñëw na président Amérique ñëw na fi mais la mu ko waxoon moo di ne euh, Sénégal euh, mënu ñu nangul ñu mel depoul ak suñu aada ak cosaan loolu daf mëna nek nekk loolu dayu seen xel kàddu yooyu mu yëkëti won wa mais dafa jëkk wax lo xamné ne euh, doy ñu won daf ko jëkk ne on n'est pas encore prêt <laughs> on n'est pas encore prêt moy yalla mëna def bëss <laughs> qu'on soit prêt motax ñu ñëwaat. kon daal leerul pour yow mbir mi lérul waaw bu leen waxoon né abdou fi am dañuy tok mais boo leen ne on n'est pas encore prêt. Moi, xeyna yalla yàlla mën na def bés dana on sera prêt mais ginnaaw gi le président Macky a été un peu plus radical parce que bamou paré ak jakarlo mak Obama sa naataango Audrey Pulvar bu iTélé ak tamit Franck Simone, bu TV5 ané ba ca topp à l'occasion du sommet de Antananarivo sommet de la francophonie néna len pourquoi voulez-vous parce que l'homosexualité a été légalisée chez vous qu'il faille en faire une loi universelle après mu daal di que nag foo waxi fulla la wuuteeg jàkkaarloom mak Obama daal di leen de grâce laisser à chaque peuple souverain le droit de définir sa propre législation kon ñu ngi ñaan Macky Sall na deuguer ci position Bon. manam ci gatal pour tëj waxtan wi état Sénégal gëna léral loi bi sax mu jeex tàkk jërëjëf. waaw état bu mu léral loi bi rek yam ci ne supprimer le genre parce que ministère Bodem dem amna un département du genre genre moy lan. yow ne nga créé nga. ci la ñuy dëxëñ lépp nag ci la ñuy dëxëñ lépp. ngir jaaree ci dérive yi. mu ngoog jërëjëf Mame Makhtar Gueye ñaareelu njiitu ONG Jamra ONG islamique jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène El Hadj Assane yegsi na ñu ziar euh, Astou Mbène